indiwoon tey comme ni dañu dikkoon donc def euh, ndaje boo xam ni euh, pour euh, ñu partager mais tamit valider document bi nga xam ni moom la ñu moom la étude bi nga xam ni moo jëm ci lépp lu jëm ci wàllu garab ci université bi wàllu garab wàllu wàllu wàllu wàllu fleur ak lépp lu jëm ci ci rafetal donc tey moom la ñu dikkoon donc partagé ko ak ñi nga xam ne ñoo seq université ci njiitalu sëñ maam Thierno si euh, sëñ Ahmed Badiou ak sëñ maam Thierno Mbacke euh, ak sëñ Mourtala mi nga xam ni tamit moom moo moom moo yore kuréel gi nga xam ni moom la sëñ Moustapha Abdou Khadir donc sam bon kuréel googu yàlla def man ñu jiital ma ci étude bi def nañ ko ba tënk nañ ko ba ba joxe ko gis ngeen ko donc validé nañ ko incha allah léegi li nga xam ne moo ci des mooy jublu ci ci liggéey bi liggéey boobu nag. comme ni ma ko waxee sànq moo di lépp lu jëm ci wàllu rafetaayu université bi euh, kuréel googu sëñ Moustapha Abdou Khadre moom mi nga xam mooy jëwriñ ji ah, ci ndigalu sëñ Mountakha Mbacké ñu koy dolli ñaanal wér ak gudd fan loolu euh, donc ci loolu ciy liggéey ak sëñ Mourtala mi mi taxaw ak ñi ko séq ñëpp liggéey boobu nag euh, fi mu ne bi ñu ko xaymaa toll na ci téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak ñeent bon budget boobu euh, actuellement commencé nañ ko ba commencé liggéey bi sax euh, liggéey bi door nañu da ngeen wax ay pépinière ah pépinière yooyu commencé nañ ko wut garab yi tamit fépp foo xam ni garab bu war a dem ci université bi xam nañu déjà fi nga xam ni fa lañ koy jëlee nga xam ni su fekkente ni am nañ ko am na suñu pépinière baax na su fa amul ñu dem jënd ko su ko defee indi ko léegi nag euh, nii liggéey liggéeyee université bi noonu lañ koy toppee bépp jumtukaay boo xam ne noppi na rek su ko defee sëñ bi suñu joxee ndigal rek su ko defee ñun léegi ñu commencé foofu loolu sax nañu def ba gis ngeen euh, jumaa ji gi sëñ Cheikh di def ak centre de santé bi ñun déjà foofu lañ ñu jox pour ñu commencé foofu suñu ko joxee donc ba ñu def kii terrassement yi yooyu ba pare su ko defee ñun ñu ñëw léegi donc jëmbat lépp luy fleur garab ak li ci war yëpp su ko defee léegi xaar beneen kii bu pare rek ñu daal di jàllaat foofu ba université bi daal di noppi. kooku lu ama am solo la ndaxte waxuma sax euh, Touba wala Sénégal mais kooku àdduna bi yëpp la la la yitteel ah. mu nekk euh, loo xam ni euh, lu ñu war a jóg la te loolu tamit gis nga Touba daf ci am daf ci daf daf daf ci am taxawaay bu am solo jaarale ko ñu jaarale ko tam suñu kuréel gi. bépp garab boo xam ni fi ne nii dem nañ ba gisatuñ ko wala boog mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi néew mu ngi raaf comme ni ñu koy waxee dinañ ko jéem a indiwaat ci loolu sax gis ngeen waxtaan naa ci ak euh, directeur bi nga xam ni mooy institut des sciences de l'environnement bu université de Dakar toog nañ ci waxtaan donc ñu jàpp ay solution yoo xam ni incha allah dinañ ko mën a def non seulement fii à Touba mais également même élargir ko wax dëgg yàlla mu mu jëm même ci yeneen régions yi ci Sénégal ba xam ni loolu daal am nañ ci yaakaar mais li am solo daal mooy fii ci université bi lañ koy dooree ndax université bi tam xam ngeen ni euh, UFR yi fi nekk am na solo hmm? yoo xam ni ci wàllu garab ci wàllu mbay yooyu yëpp tamit day day day day laaj wàllu garab te incha allah donc ñun dinañ ci dinañ ci taxaw daal ba luñ ci mën donc dinañ ko def. auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba bu baax. ñu ngi am mbégte bu baax ci euh, li fi am li fi xew tey muy daje bu am solo boo xam ne dañ ko def ci wàllu aménagement paysager nga xam ne mooy kon lépp luy naatal taaral université ah, liggéey boobu nag euh, yàlla dogal bi nga xamee ne si def nañ études ba pare ba ci waaj a noppi ca la tawféexu Serigne Touba ñëw euh, Cheikh Moustapha moom Serigne Abdou Khadre euh, ñëw ànd ak mbooloo euh, boole ñoo ak Cheikh Mamadou Mourtala mi ak Serigne Modou mbay ak ñi mu àndal ñëpp ngir ñu jël aménagement yooyu ànd ko ak ñun saytu liggéey bi Euh, ba jëmmal ko tey nag kon euh, li ñu doon def mooy daje boo xam ne day nekk validation mooy liggéey boobu nga xam ne euh, dafa am ku ko doon def ñun ñëpp ñu daje ingénieurs yi nekk fii ak commission pédagogique bi ak architecte yi ak ki doon def étude bi ak sëñ du Mbaye mii ak ñi mu àndal ñun ñëpp nu daje fii valider loolu yàlla dogal na nag am nañ ci tawféex ndax xalaat yu am solo jóg na fi ba yëpp incha allah daañu ko dugal ci étude bi euh, nga xam ne kon mën nañoo jàpp ne loolu fi ñu toll nii euh, sotti na ba pare incha allah kon euh, ñuy doole nag gërëm bu baax Cheikh Moustapha di ko di ko fas di ko ñaan mu fasaale nu ci liggéey bi euh, nga xam ne xaasam la euh, ci bisub Cheikh Abdou Khadr bi nga xam ne kon wane na ne euh, liggéey bu boromam nangu la kon ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax li am solo nag mooy fi toll nii dañuy waa dañuy waajal nu ñuy nag jëmmale mbir mi Euh, ni ñu koy jëmmalee liggéey bi euh, xam ne euh, toppatoo garab yi ak ak pavage yi ak ndax li ci aju lépp sotti na mooy lu ci nekk na mu war a na war a tëddee kon li ci amoon solo daal tey def nañ ko kon ñu ngi sant bu baax di gërëm. suivi garab yi day day day lu am solo te lu ñu bàyyi xel la ndax li tax ñu bàyyi ko xel mooy. arrosage bi ci boppam euh, dañ ko boole ci liggéey bi nga xam ne euh, ndox mi ci boppam dañ koy traité euh, assainissement bi muy arrosé garab yi nga xam ne loolu dañ ko boole ci système bi la ca la ca desit mooy dañoo am fii dañoo waajal ci barab bi benn service maintenance entretien loolu am na bâtiment boo xam ne loolu loo looloo ko tax a jóg kon ci bâtiment boobu ak ci ña fa war a nekk loolu bàyyi nañ ko ci xel euh, euh, ndox mi ci boppam itam euh, def nañu études yi ba nga xam ne lépp loo xam ne prise d'eau yi fu mu war a génn rek ngir mën a arroser garab yi loolu itam waajal nañ ko ci la may mujjee nag mooy ñii fi ñëw tey euh, saso saso li ñu saso dañ koy ànd ak ñun ndax daanu daanu danañu bokk ci euh, ni ñu koy taxawale ni ñu koy ni ñu koy garab yi ni ñu koy jëmmale waaye itam noppi nañ ci ànd ci ànd ci ak ñun ci wàll wàll suivi bi nga xam ne kon ñoom bu ñu wuccee wutee garab yi ba jëmbat ko dañ koy ànd ak ñun ci suivi kon loolu daal ci ci tënk moom lañ fi waajal ngir loolu nga xam ne mooy pàcc bu am solo ci suivi bi ñu mën koo ñu mën koo taxawee ni ko war a taxawee ànd ko nag ak ñi nga xam ne euh, ñoo war a yor université bi ci wàllu commission pédagogique. sant yàlla bu baax rek di sant Serigne Touba bu baax mi nga xamante ni moo ñu boole ci liggéey bi. liggéey bu am solo bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, moom moo ko yëkkati woo ci murit yëpp euh, waaye nag may yëkkati sama kàddu ci turu Serigne Moustapha Sène Khadre mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi euh, xanaa rafetlu lépp rek wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo liggéey bi am na solo kon nag léegi li ci des mooy ñun ñëpp rek ñu maase laxasaayu fas yéene jéem a jëmmal liggéey bi ba nekk sëñ bi bëggee ñu amee ko noonu bu ko defee nag kon ñu ngi woo mbokki taalib yëpp ak mbokki ji jullit yëpp euh, rawatina ñun murit yi nga xamante ne nag laxasaayu liggéey sëñ Tuubaa rek mooy suñ liggéey moom la ñuy xëyee moom la ñuy gonte lii nag taw feex la joo xam ne sëñ Tuubaa moo ciy taw feexal nit waaye demewul ne nit moo koy fàggul boppam sëñ Tuubaa képp comme liggéey loo rek dana la jox jumtukaay ba nga xam ne moom lañ ko war a liggéey kon nag waxtaan nañu ak ñoom ñoom it wax dëgg dalal nañu wan nañ yoon wi fas nañ yéene jaar ci yoon woowu ba ni ko sëñ bi bëgg rek ñu amee ko noonu ñu ngi woo mbokk taalibe yi fu fooy mën a nekk nga xam ne liggéey bi sab liggéey la maanaam noo ci man a jàppe ak wet goo ci mën a jàppe rek nga jàppe ko ci ñu ngi leen di sant yéen journaliste yi ak ñëpp nag sant nañ leen bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi di leen di nuyu maam Thierno Mbacke mi nga xam ne moo ànd ak mbooloo mi ànd ak sëñ Murtala suñ doom ñoom ñaar ñu di suñu ñaari doom ñu àndoon ci liggéey ba ba ñëw nag waxtaan ba noppi doon ma leeral si fañ toll ci waxtaan ba loolu mooy solo si jataay bi te ne ko maam Thierno waxee mu faram dëpp ak seen bisu maam Cheikh Abdou Khadim ba mu gën a tax ñu ci am yaakaar ndax noonu mu ko waxee bañ koy jàpp bàyyiwuñ ci moom xel loolu kon nag loolu ñuy woote mu jëmbat garab. Euh, euh, day dafa day tiyaabu ju rëy rëy rëy ndax euh, ku mu fekkoon yonent bi dane ku mu fekkoon saa ngi bëgg a taxaw tafat nga yor garab war koo jëmbat sax na nga ko jëmbat soog a soog a dem fàttu ji <laughs> waaw kon loolu lu am ahamiya la ci lislaam lu am tiyaaba la kon yàlla na ci yàlla dimbale ñu ngi ciy soññ bopp waaye di ñu ngi ci sotti taalib yëpp rek waaw yàlla na ci yàlla boole dimbale waaw ndax lu am njariñ la lu am tiyaaba la te lépp lu taaral Touba yi eh, ku dib taalibe war nga cee góorgóorlu yàlla na ci yàlla boole dimbale defal ñu ci ndam. kon nag ñu fas yéene tàggatoo ak yéen te ñaanal leen bég naa maam Thierno na ma liggéey bu baax nettali na ma ko bi maam Cheikh Seydou ñëw fàttaliwaat ma ba fàttaliwaat ma it tout ce maam Thierno doo bett ñoom eh, ndax. waman isaam yi abu hoo fa masalam <laughs> eh, te baayam kon xam ne mu ràññi eh, ak taalib bu ko rek danaa ci bëgg waaye danañ xam ne du nekk kii kon yàlla na yàlla dimbale li ma leen ko waxee léegi rek eh, liggéey bii day liggéey bu ñor Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal jataay bu sëriñ bi te nag liggéeyal sëñ Tuubaa mag dafa maa waxoon ma kaay nu liggéeyal sëñ Touba mooy kaay ñu nemm lem lem nag ku xam na li leen ci neex gi ku ne xam nañ ci li ne nekk ci bànneexu nemm gi kon loolu mooy moom képp mooy liggéeyal mooy kaay ñu liggéeyal sëñ Touba loolu kon mooy suñu soññee ñun ñëpp bi xam ne moom lay tëjee ñun ñëpp nañ gën a góorgóorlu sëñ Touba moom ku koy liggéeyal ku wala nga bëgg koo liggéeyal sëñ Abdoulaye nee na woon eh, lenn rek moo ci sa war ordre façon la ca des moo ko yoral boobu. kon nag yàlla nañ ko fasoo rek. amiin nee da koy àggale ba noppi nag bàyyee la sag bi. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah.